بقية همتي وقصى مطلب محمد وسيلتي لعربي الحمد لله الذي منا طلب إخلاص سعي ومراءة العدب من ينصر القلوب والسرائر دون الذي منا يكون ظاهرا ثم الصلاة مع سلام يتبع على الذي فينا غدا يشفع من بفدائل الهدى تحلى وأن رسائل ردى تخلى bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki M-Media Group nooru daara yi nii ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm te ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal nu jàmmi àddina ak àlaxira ci barke alquranul karim kon fas yéene dikkaat ak dikkaat ak yéen insha allahu taala ci sunu jataay bii di zaadu nisaa muslimaati li nasihati al muminina wal muminaati teg ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waxoon addiinu nasiha lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimati almuslimina wa ammatihim jotaay boo xam ne dañ ci laayante biir ak mboolem jullit ñi rawat na sunu bokki jigéen ñi ngir ñu laayante biir ak ñoom ci loo xam ne moo aji sunu wàllu diine ak sunu wàllu àddina woo xam ne lépp day jag tegu ci diine islaam mu mel ni jataay bi passé noo ngi doon noo ngi ne génn ci jëkk lislaam di ñëw diine yi nga xam ne ñoo fi nekkoon wala arab yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ni ni jàppe woon jigéen ba nga xam ne àggoon nañ ci dayu jigéen bañ jigéen bañ koo xam ne jàpp nañ ne jigéen warta dund wala jàpp na ni jigéen bu dundee tam danga war a nekkeek moom num la neexee rek amul benn xaq boo xam ne dinga ko ko jox loolu moo tax alquran karim di wax ne wa isa bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadan wa huwa kazim bu jëkka ñoom ci arab yi ko ci masaa ba digg ñu la diw am na doom wala ñu ne sa soxna am na doom da ngay jëkk def mooy da ngay mer sa kanam lool ñuulal ko ngir jàpp ni jigéen moom nekkut lu war a am bokk na ci àgg nañ ci ba ñàkk jox jigéen ak xam ba nga xam ne am na ci ñoom sax ñoo xam ne buñ leen waxaane seen soxna am na doom bu nekkee jigéen dañ koy gas suul loolu la alquran di wax wa isal mawudatu soxe so ilat bi ay zanbin xutilat loolu moo taxoon ñu daan jàpp jigéen jàppiwu ko lenn loo xam ne lu am solo la ba tax nañu ko daan takk façon takkiin yoo xam ne lañ ci jublu rek wala la ca la ca am rek mooy ñàkk xam digg-digg war jigéen wala ñàkk xam digg-digg dayob jigéen lu ci mel ni misaal nat kera eh, lu ci mel ni nikaahu istibda lu ci ni ki nikaahu rati lu ci mel ni ki nikaahu baxaaya badal lépp ay xeeti takk la yoo xam ne ngir suufeel jigéen ak ñàkk xam digg digg jigéen lan mooy jigéen war tax ni ko daan takk ak àggoon nañ ci ba nga xam ne nii ñi nga xam ne sax euh, jigéen bu amee borom kër wala sax doomam wala kenn ku ko jege bu faatoo ñu yëkkati àllam ci miraas ma joxe ko ñoom jàppoon nañ ne jigéen moom moom dañ koy doon sax waaye du doon koo xam ne dafa mas a am ay jaamam yu jigéen wala moo am ay soxnaam yu jigéen bu fa bu fa jógee dañuy séddoo alal ja séddoo séddoo soxna sax séddoo soxna ya Euh, nga xam ne loolu moom ñàkk xam mënu koo passé ak doy di jigéen nga xam ne jigéen moom dañ koo jàppeen comme matière boo xam ne bu tega bu tega la lislaam moom bi mu dikkee jox jigéen gëddaan dëgg moo tax moo wax ne laqad karrama lislaamu mar'atu bi an ja'alaha murabbiyatil ajyaal wa rabtu salaahi mujtama bi salaahiha وفساده بفسادها لأن تقوم بالعمل العظيم في بيتها ألا وهو تربية الأولاد الذين يتكون منهم المجتمع ومن المجتمع تتكون دولة المسلمة loolu moo tax mu wax ne bu fekkee ne bokk na ci rafetuk teraanga gi nga xam ne lislaam teral na ko jigéen mooy jigéen mu mooy ki nga xam ne boo ko formé ba mu jekk rek mooy formé nga ab euh, mooy formé nga euh, mujj tama mooy formé formé nga euh, pouvoir bi yépp ndax bokk na ci yàqu yàqu yàqu dëkk bi wala ngeen yàqu ëtt bi bokk na ci yàqu pénc mi mooy yàqu jigéen jigéen bu yàqoo rek pénc mi yëpp mën naa yàqu waaye nag bu defaroo rek pénc mi yëpp mën naa defaroo ba léegi delluwaat ca waxi arab ba الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق من تكريم الإسلام المرأة أن خصص لها سورة من القرآن سماها سورة النساء ولم يخصص للرجال سورة لهم ودل ذلك على اهتمام الإسلام بالمرأة ولا سيما الأم وقد أوصى الله تبارك وتعالى بعد ال... بعد العبادة فقال فقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سورة الإسراء ndax wax ne bokk na ci tera lislaam jigéen mooy bi lislaam ñëwee dafa jël aw saaru alquran jagleel ko jigéen ñi te ci jigéen ñi rek lañ ko gis waaye saar woo xam dañ ko tudde góor gisuñu ko ci alquran loolu moo tax mu ne loolu mooy feeñil ittewoo gu lislaam ittewoo jigéen rawat nag yaay ndax bi suñ boroom waxee ne ni ngeen ma jaamu lam ca teg mooy te ngeen rafetal ci seeni wayjur wa qadaa rabbuka an laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan kon ihsaan googu bi suñ waxee na ngeen ma jaamu daf caa teg rafetal seeni wayjur wa qad hamalahaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam awlaad fa qaala mukarramun laha walmar'atu raaciyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an raaciyatihi ne na jigéen bokk na ci jagleel gi nga xam ne su Boroom tabaaraka wa taala daf koo jagleel mooy jël saalu asaaru alqur'an te mooy suratu nisaa tudde ko jigéen te gisuñu ci alqur'an wenn saar woo xam ne su Boroom tudde na ko góor loolu bokk na ci teraanga joo xam ne suñ jagleel na ko jigéen wuuteeg ñee nga xam ne moom ma saa wax ne jigéen judd na lan ci xalaat rek mooy gas suul wala ñu mer lool lislaam moom dikki tere leen ba nga xam ne dafa yëkkati lu toll ni ki saaru alquranul karim jagleel ko jigéen ñi nga xam ne la ci ëpp ñu ngi wax ci mbiri jigéen ñi rawat na nag ki nga xam ne mooy yaay ndax yaay moom ni mu waxee léegi ne yaay moom mooy école bi njëkk su baaxee rek lépp baax waaye su yàqoo tam lu bari mën naa yàq toon moo tax mu ne al mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha jigéen moom saa bu ne rek ab sàmm la ci ci kër boroom këram te it ku ni laaj la ak sàmmam wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wa min takrimi al fi al an sawaaha birrijaali fi ahliyati walwujubi walaadaai wa asbata laha xaquha fi tasarrufi wa mubaasharatu jamii jamii alxuquuq ka xaqi lbayi wa xaqi shiraa wa xaqu daa'inu wa xaqu tamliik wa gayriha bokk na ci rafet rafet yi nga xam ne lislaam feeñal na ko ñeel teraangay jigéen mooy yemale gi nga xam ne daf ko yemale ak góor ñi ci amee njaboot di leen yar teg leen ci saata mustaqima ak euh, saxal àq yoo xam ne àq yi euh, jëflante la ak àq yi ak génn ak àq jënd ak jaay ak àq yoo xam ne àq euh, diggante leblante la ak jënd ni ko góor ni ko lislaam daganale góor noonu la ko daganal jigéen ak àq yi am sa alal mu nekk mu nekk ci sak moomeel nga sanca waxad karamal islaamu almaratu wa zalika xiinama axbarahu llahu taala fi lqurani bi anna allaha xalaqana min dakarin wa unsa wa jaala misana tafadiran amali saalih wa taqwa fa qaala azza wa jalla yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير bokk na ci teraanga yi nga xam ne suñ boroom defal na ko jigéen eh, ci lislaam mooy góor ak jigéen suñ boroom mu leen sàkk waaye suñ boroom sàkkul jigéen teg ko ne sàkk góor teg ne daan yow góor moom yooyu jigéen mutlaxan ci lu man doon rek yàggan yàggan jigéen góor toog tegale tànkam jigéen di góor góorlu góor ga daal di koy gën déedéet wala jigéen ji di góorgóorlu ba sonn góor ga tegale tànkam wala ñoom ñaar ñu andi góorgóorlu téewut góor ga gën ko déedéet ñoom ñaar lislaam def leen yemale peese leen ci jëf ju baax ku ci gën jëf ju baax rek ku ci gën a ragal yàlla rek kooku mooy ki gën loolu mooy li li alquran wax ni inna xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu waaye nag indi na inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a ragal yàlla ci yéen rek mooy ki gën a ki a tedd ci yéen rek mooy ki gën a ragal yàlla moom góor mooy jigéen jigéen ji gën a ragal yàlla góor kooku mooy ki ko gën a tedd fi suñu borom waaye góor gi gën a ragal yàlla jigéen kookee mooy ki gën a tedd fi suñu borom kon ngëneelu góor ci kaw jigéen nekkul ne dafa nekk loo xam ne lu góor di teg lay tànkam la wax ne ca cosaan lépp rek man maa ki gën jigéen déedéet jigéen bu gënee farlu góor ci wàllu jaamu yàlla digganteem ak boromam digganteem ak njabootam digganteem ak lislaam bi ak jëf ju baax ji bu ci gënee farlu góor moo koy gën fu waaye nag ci góor gënee fan itam daal féete ci kanam waaye nag téewut ne góor moom saay bu ne mooy nekk ci kanam jigéen ndax ar-rijaalu a ala nisaa jigéen lu mu farlu farlu farlu farlu nekk ci kanam góor gu farlu itam ñoom ñaar ñëpp ñu farlu lu góor ko mooy nekk ab sangam mooy nekk ci kanamam wa min mazahiri takrimi llahi lilmarati an zakaraha bi jalbi rijali qaala allahu taala inna almuslimina walmuslimati walmuminina walmuminati walqanitina walqanitati walsadiqina walsadiqati walsabirina walsabirati walxaasirina والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الأعزاب bokk na ci rafet rafet yi nga xam ne lislaam def na ko jagleel ko jigéen wutale ko ak ñeelee nga xam ne nanu ko jàppe woon mooy euh, ni nga xam ne suñu dana tudd jigéen ju baax góor gu baax jum tudd rek tudd na jigéen ju baax ju mën a mel ni moom ci wet ga comme ni mu waxe ci alquran karim euh, jigéen ñu jigéen jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi woy gëm ñu góor ñi ak woy gëm ñu jigéen ñi euh, woy gëm woy dëggal ñu góor ñi ak woy dëggal ñu jigéen ñi aji muñ ñu góor ji ak aji muñ yu jigéen ñi aji ragal yàlla ñu góor ñi ak aji ragal yàlla ñu jigéen ñi way dëggal ñu jigéen ñi way way góor ñi ak way dëggal jigéen ñi naka noonu woorkat yu góor yi woorkat yu jigéen ñi ñi nga xam ne ñooy sàmm seen bopp di sàmm seen seen di seen seen bay ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla ci góor ñi ak ci jigéen ñi nee na ñoom ñépp suñ borom dig na leen fay gu rëy njéggal ak fay gu rëy te muy dugg aljana ci aljana yi gën a kaw nga gis ne foofu kon la suñ borom tagge góor rek jigéen itam mën naa farlu ba taxaw ca ba taxaw ca wet góor gi nga xam ne dafa farlu lool ci wàllu diineem dégg diineem lool te farlu ca lool naka noonu mën naa am jigéen di nekk ci wetam jigéen itam mën naa dem ba tolloog moom ci wet boobu góor gi nga xam ne dafa nekk aji gëm dëgg dëgg digg digg ak ba ci fa dayub ngëm ak fa dayub mën naa àgg foofa góor gi nga xam ne itam dafa dëggal lool àgg ba ci fa dayub dëggal yam ne na jigéen itam mën naa àgg foofa noonu la ko toppee ba aaya ba jeex nga xam ne mu tuddee góor rek ci eh, ci wàccuwaay yooyu wax ne jigéen itam téewut mën naa àgg ba àgg mën naa dem ba àgg ci wàccuwaay yooyu te tiwul ñoom ñaar ñu ñëpp kenn ku ci nekk kooku muy góor wala kee di jigéen suñ boom dig na la fay gu màgg dig na la njëggal ak fay gu màgg ëllëg yamal xiyam te muy dugg ca aljana ya nga xam ne mooy aljana yi gën a kawe kon foofu moom di wax ne eh, des ko méngale ak ña nga xam ne ñoom ñooy suufeel jigéen kon lislaam moom eh, kàddoom ca kaw ci wàllu jigéen kon xam naa dañuy taxawlu foofu rek insha allahu taala ba beneen jamono ñu door a continuer waaye lislaam moom teral gi nga xam ne moom la teral jigéen yëkkati gi nga xam ne moom la yëkkati jigéen jox cër gi nga xam ne moom la jox cër jigéen foo ko takk rek paase na ko xam ne boo waxee sax mën naa mel ni góor dafa nekk ne jigéen nekk ne waaye bu déggee ñu wax jigéen lislaam cër bi mu jox jigéen mooy jigéen laata lislaam bi ñëw dafa am ñu fi nekkoon jox ko cër boo xam ne jigéen yeewu ko jigéen paase ko teg ko wàccuwaay teg ko tegin woo xamante ni bi jigéen jigéen ëpp na ko jàppe ko noo xamante ni bi jigéen paase na ko lool bi lislaam dikkee nag teggee jigéen foofa indi teg ko feneen ci wàccuwaay yi nga xam ne mooy dëgg dëgg dëgg wàccuwaay sàmmoonteeg àqi doomu aadama loolu moo tax ñuy faral di wax wàccuwaay jigéen waaye góor ak jigéen ñoom ñëpp ñooyam kenn ku ci nekk teraanga jële suñu boom teral dafa dugg ci li suñu boom wax wala xadd karram na bani aadama kon lislaam moom bi mu dikkee dafa xam ne suñu borom euh, doomu aadama ci boppam la la teral kon ak teraanga googu ràññeew ca góor ga ràññeew ca jigéen ja moom xanaa fattera nga jidde ëpp rek mooy ki nga xam ne dafa gën a ragal yàlla gën a tegu ci siraatal mustaqima waaye xuulu ca kee jigéen la wala kee góor la wala kee dafa gàtt wala dafa njool wala dafa xees wala dafa ñu déedéet lislaam moom fi mu lay teral rek mooy nga gën a ragal yàlla gën a aw ci ndigal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum kon foofu lañu taxaway insha allahu taala ba beneen jamono subhanahu wa taala defal ñu ak dégg ak toog ci bar Seex man Xaadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lil mustafa xayri xalqi laahi mansilatu law wujjihat nahwa kullu wara xaaru raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraaru